ak ak sa sa sa bopp moom karaama sëriñ bi rekk la dañ ci mën a xam ci saayir nag xam nañ xam naa ne moom euh, xel mu rëy mu rafet fa moom la mën a yem jikko jure jikko jure ju mat fa moom la mën a yem pastéef boo xam ne nag euh, euh, dama daa wax ne Alaaji Abdou Lahad bis penc ci du fa yées kenn. ndax daana dégg muy wax naan kat man bal may soxla soxal aw ñay lay soxal aw fel dëgg gi moom moom juróom-ñeent fukki at yeeg xale bi soog a judd leer bi soog a judd laa ci amale waaw ndax dëgg rek am solo. pas-pasam pas-pasam samp na fi loo xam ne. ñu ci bari bi ñu dikkee gis nañ ne euh, am na wet yoo xam ne noppal na leen ci noppal na leen ci direct la. ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du ne lii la lu woon a wax mbaa lii la lii la fasoo woon a wax mbaa lii wax ji dama koy waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp. wax ju leer wax la ko nga xam ne yow lay waxal di la ko wax nga xam ne amu ci benn intérêt. fonkeelam ak soppam ci alquran tax ñu koy misaal ci seydina usmaan ñetteelu xalifa jullit yi mi tax ñu jot ci alquran mu dajale téere yi tabax daaray kaamil boo koy xool day mel ne dafa jox taxawaayu seydina usmaan ndax ni mu taxawale sëñ Tuubaa ci alquran def daaray kaamil yi indiwaat alquran yi binduloo doomi sëti sëñ Tuubaa yëpp mool ci lu jeex wàcc mu nekkee fa sëñ Tuubaa tam doon ak bëggam ak li def ci xasida yi loolu daf lay jox rôle suy woon ci biir tar eh, saxaaba yi day mel ne lool it moom def na ko ci biir xulafaa yi nga xam ne boo koy misaal noonu kaana xuluxuhul xuraan moom da cee boole xasaayit maanaam da alxuraan juy dox ci kaw suuf ak i xasaayit ndax ànd na maag moom ba tàyyi ci oto jëmut fenn dañuy taal oto bi rek dem ba njëreem fekk day tari ay xasidi képp am am bis yu ñëw mu ne man de damaa sasoon loo xam ne mënatu mënatuma ko ni ma ko manewoon waaye bu jëkk day bis bu set daanaa tari ñeenti junni béy ولم يكن بالمشركين لم ينفع عند الموت Mourides autour de l'héritage spirituel de Khadim Rassoul, inspiré du Saint-Coran et des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le travail comme une forme de prière guida les actions de Serigne Abdoulahad Mbacké. En 21 ans de califat, il fit entreprendre de nombreuses réalisations qui confirmèrent sa volonté de n'être qu'au service des désirs de son vénéré père. Extension et aménagement de la ville sainte de Touba. Rénovation et construction des lieux édification du centre de connaissance reflet des contributions de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké au savoir islamique universel yi ci des yi nga xam ne moom les dimbandikoo ci jaamu yàlla waaye du caagane dajale xaalis du caagane dajale wurus loolu moo ko bind moo ko wax moo waraloon mu santaane ne nañu ko defaral kër goo xam ne kër téere lay doon am na tabax bu ne fii ci Daaru Xuddoos ci Touba sëñ Mandu Mel la santoon ne ko na ko fi tabaxal tabax goo xam ne gii euh, buñ fa defee téere yi duutu maxe du yàqu booba lu mel ne suñu bibliothèque bii sëriñ bi def moom lañu ci santaane woon euh, ba ñu ko tàmbalee ba mu toll ci di waaj mat la sëriñ bi dikk Touba yéene jooju sëriñ Abdoulaye yeggalal na ko ndax defaral na ko bibliothèque boo xam ne ñàkk na ci ñaar téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom ci tabax gi képp te euh, def na fa ci ay téere loo xam ne diwaani xasa yi dem na loor a mat juróom-ñetti fukki junni diwaan def na fa ci téere alquran loo xam ne dem na ci juróom-benn fukki junni euh, kaamil importe nañu ay téere yoo xam ne ñu ko jëlee euh, Égypte yoo xam ne moom itam dem na ci trente cinq mille volumes la mu ci ñàkk ci xaalis dem na quatre vingt dix millions te bàyyeegul kon kooku li sëriñ bi bëggoon ci wàllu téere yi ñu ngi koy defal bu baax. ak ku fekk liggéey ba xam la mu ca dépensé ci wàllu alal ak gu ma ci téere yi de waaye jëmmi bâtiment ba rek la mu ca dépensé yéeme woon na ci jamono yooyu mu ko doon def. ba mu ca noppee mu yëkkatiwaat lim boo xam ne yéeme na ndax su ma juumul ragal naa ne romboon na trois cent millions jëm kaw ci lu ñu jënd ay téere ndax xam na jamono yoo xam ne fekk naa alxaaji Mouhamadul Mahmoud Niang fekkante nañu euh, balanka ca Maroc fekkante nañu itam Égypte ca Caire lépp muy gëstu di jënd wàllu téere yi te ndigal li ko sëñ bi joxoon mooy lépp luy téere xam-xam. bu mën a jariñ doo aadama ci dundam ak ci ëllëg bu njëgg yéeme lu mën a jar na nga ko xayma jënd ko. fekk itam Daaru Kaamil itam bi ko sëñ bëggee defar dafa yebal sëñ ma mu sëñ Maodo moom ci man keer jox ko lu mat juróom million ñu jëndee ko ay téere téere yu bari ci Daaru Kaamil ko jënd maag Maodo Mamoun Niang ci keer ma jënd nag téere yu mel noonu indi ko Senghor. mu ne ma da koy séddale jox ko kilifa di mu ne ma tànnal ma nag yi ma war jox sëñ Abdoulaat tànn ma téere yu am maanaam yoo xam ni du ma ne mosu koo gis <laughs> waaye xëy dina ko soxla ndax moom xam naa jikkoom su ma ko joxee téere yi ñàkk a dafa ah lii lan la <laughs> pour war leen ku ne na ko. def yitte ci dëppale Touba ak dëkk yu mag yépp yeesal ko taaral ko def ci ay jumtuwaay yu mën a jàppandal nit ñi seenu nekkin. mu samp forage ci lëkkaloom ak nguur gi door sànce yu mag yi corniche bi poste bi andi courant ak telefon tabax l'hôpital def ci poste gendarmerie ngir kaaraange doomu aadama yi yeesal ay nu raxmati ilaykum salaamun zaabitun maa yasurrukum جميعا ويبكين gannaaw bu loolu wéyal wéyal nag man ren leen ko ci xamal leen ñu fii ci Tuubaa laalal naa ko fi ab liggéey ñu dem ci jumaa ci li ko war a wër ak naar ba buñ ci war a def ak yokk buñ ci war a xam ne ñun ñun seen ñaari téeméer danañ ci mën a jëlee ko ci ñu julli li mu la koy war a liggéey dana jege milliard imaam lépp dana ko ci wax digal na tool yi ba bu yaakaar sëñ bi wàlloo am def ko ci. salaamaleykum kullu waqtin wa saatin. ni mu yokkee yoon ne la yokkee mbay mi ci yoon bi. Abdou Lahat sanc dëkk yu bare Touba Belel Bokki Barga Mbar Dieng ak yeneen mosula dunde lu dul ñaqam. bu ñu may ci daaraam lekku ci këram man mosuma koo xam man la fi nekk lépp. te yàlla rek tax mi wax. réew it lu mu ci mos a ci liggéey Sëñ Tuubaa la ko def. Mm-hmm. bi mooy maa ngi fàttaliku bu ñu seetee Senghor benn bés en au mai en mois de mai quatre-vingt ñu bi te jiw gënutoon les semences muy président Senghor béykat sonn nañu kiif nañu war nga jóg si jiw bi ak ci dund bi ko mun nag mu ngi si plan bi mun plan dafa yéex ñëpp rek. ñeenti fan lañ teg jiw génn dund génn. kilifa diine gu xam àdduna peek lool communication amoon ay jaxasoo ak niti nguur yi diggam ak président ba fi woon di Abdou juuf dem ba doon diggante baay ak doom. que pour le président Abdou Diouf il était l'ami le père et le conseiller la concertation permanente entre les deux hommes était là comme le symbole vivant de l'estime qu'il se vouait. bàyyam la woon de bàyyam la woon bàyyam la woon c'était son père. ma waaw ana Abdou Diouf léegi léegi nu waxtaan. waaw ah, ko ma nga fa fekk Abdou Diouf doon soog a def benn remaniement. sëñ Abdoulaye lu nekk la daan toppatoo lu nekk la xamoon te ne ko fu mu toll nag na bàyyi diine na bàyyi diine ji xel te loolu ma dégg ñaan franc-maçon la xawma bu mu ko jege mukk bu ko jege alkude bu mu ko jege mukk bu mu bu mu tam ànd ko ko jege bu mu dimbali ko ko jege loolu jox franc-maçon ma ne ko bu sama yàlla dana ko dégg incha allah. moom nag ma wëlbati ko am lu ma koy dénk ci tuuru baay ak doom rek loolu moo di melaw yi mu won réew mi ba ñu rafet ci moom jot seen xel dal ci moom ñu am ci moom koo lu réef maa ngi koy ñaan bu ko dara delloo gannaaw ci loolu. wante ndax gis ngeen mës ngeen gis ku defal chef d'état wala homme politique bu jiite ci réew mi lu mel ne li ma sëñ Abdou Lahad def Abdou moom yàlla may na ko chance mu déglu Baye Laat topp ko gëm ko yaakaar ko di jëfandikoo ay conseil am ay ndigalam ba moo tax fi mu jaar zéro faute waaye man gënuma fi kenn gënuma fi chef d'état yi fi jiitu gënuma fi homme politique yi fi jiitu su yàlla mayee lii su sëñ Abdou Lahad defe ne lu mel nii dafa fekk ni ci mbaaxu sëñ Abdou Lahad li muy jaxasoo ak woy politique yi terewul daana samp ay ñàkk diggam ak ñoom doon ko bàyyiloo xel taalibe yi ak ñi ko jege. nee moom itam nit àdduna ñii ku ku ku ñoom ci àdduna daañ la daan. ndax dañ ko jàng ci téere ba mokkal ko wër ko seen ak seenub tànk ba dajal ko bu doon aw tund ña nga ca njobbaxtan la xam nga ku bëgg a mucc ci ñoom nooy defa ma ne ko waa mu ne ma gëm yàlla aw xur la duñ ko yër mukk waxuma laa di ca tab bi saa yoo gëmee yàlla rek mucc nga ci ñoom ne ma ñooñu ñu tuddee niti nguur loo gën a moytu seen mbir gën koo jege sa maam ndax sama am du jaxasoog ñoom eh, sa wërsëgu maam it du jaxasoog seen wërsëg soo bëggee nag lépp loo soxla ba bitim réew ñu di la ko eh, yanul di la ko yët tey dëgg sa tur te mosuñu laa gis na mu ko defaloon sa baay fexeel ba eh, sax ci sama am di ci xëy di loo am bu dee toola lu mu tut tut booba maa nga yëngu ca te yam ca te doy ko donte la mu lay génneel téeméer dërëm yooyu dépassé prix la loolu sax àgguma ci woon ak yéen nga doy loo ko te te yam ca Senghor yónnee ci sëriñ Abdou ne ko dama laa bëgg gis mu ne ko séeréer bi dafa may woolu taxuma am am na ci sa ndigal mu ne ko maa ko wax mu ne ko waa kon baax daa dem wuyu ji ko ñu ko Senghor wax ak laaj ko ne ko boo bëggee ñu lebal la nangam jox la nangam may la nangam pep mu xonq mi nangam loolu mu limal ko ab lim mu ne ko loolu lépp soxlawu ma ci dara li ma soxla lépp sëñ Tuubaa defal na ma ko sëñ Fall day sama kilifa jox ma ndigal naa la seeti ma la seet rek waaye dara lu ma soxla lu ma fi indi sëñ na sëñ Fallou sa rakk jii de maa ngi door a gis ku mel nii ku ñëw sama palais bi ma wax ak moom wax ko li ma soxla lépp li ma ko bëgg a jox def lépp ñii ñëw ñëpp dañ ma wax seen doléance waaye moom ma ma ma ubbil ko bunt yëpp mu ne ma soxla wu ma ci moom laa ko mas gis kii de am naa ci moom yaakaar xam ne day wàcce boppam ba xam ne daanaka ku dikk day mën a jaar ci kawam waaye nag boo boole ko waxaar boo xam ni boo dikkee boo ko jubee dangay ngay defee ne gaynde la <laughs> ne ma yett yi nag ku dul mer baaxul ndax mooy ko amul jom waaye meral ci lu lu jar lu jar mer waaw booy bëgg bëgg ci lu jar waaye lépp lu jar mer lu nee naa ko ko lu mer baaxul ndax mooy ko amul jom xam ne lu ñu la isaf rek nga doon tudd nee na ko. am na ku mas a ñëw <laughs> ne ko dafa am problème ndax dañoo dem fekk ab baar la walla ab fowukaay. fekk photo bi sëñ Touba ñooñu attaqué baar mu am coow lu rëy ñu indi ko ci moom ñu defe la mu kooku ñëw mu indi coow loo xam defoon nañ dana indi ab guerre civile ba mu ko waxee ba bañ ko nettalee wax wax le daf na daf ne ki defoon loolu nga xam ne mu jàpp ne am na ngërëmul sëñ Touba ci loolu ci jëf jim jëf dem gim dem ci baar ba détruire baar ba dóor nañ fa nekk ñu génn mu nekk ko boo liggéey liggéeyaloon sëñ Touba ba am ngërëmam doo gis photo ba ndax doo fa dem waaw kon jikko woo joo xam ne yow doo xam safaan ba ndax li nga xam ne moo mooy sa diggante ak sëñ bi boo talee boo boo bëggoon na mu war a mel mu mel ko ni doo am jot loo xam ne nii munoo ne munoo fexe ba mel ni nag da ngay jéem ba ba ngay feet faatu kon boo bëggee di bàyyi sa problème bopp di lijjanti problème keneen ku melut noonu da nga sonal su bopp sonal ko ko kon jàmm du am mukk kon benn murit itam liggéey na ci. benn jullit ñi liggéey na ci euh, dox na it seen diggante ak li nga xam ne mooy état ba ñu xam ne nekkatul ay colon yoo xam ne ay impérialiste ay colonisateur yoo xam ne ñoo fi nekk waaye ay naw la ñoo fi bokk nekk waaw ak itam rek am gis-gis macha allah am am xalaat euh, am fit euh, am am am am kaddu goo xam ni bu ma saa wax ñëpp ne ah suñu abdulaa nee nangam am na yoon woo xam ne boo maa nga keer dama fee ñëw fekk mu ñëwoon Dakaaru ma dem ci kër El Hadj Ndiou Kébé ma ziar ko mu waaw Senghor ma gis ko dee mu naan ma laa luy laan 2000 2000 mooy lan boobu ñu ngi nekk ay 77 defe naa ma ne quoi ah, 2000 de des na ñaar fukki at ak nangam mu ne ah, la yàlla xam moom mu ne bu ñu àggee ci 2000 Sénégal def nangam <laughs> déedéet nee leen ko nee xool bis bu ne bis bu ne lu jekk mu def ko rek wala mu at bi nañ def nangam a nangam tëral ay loolu ngeen programme day mm-hmm. am programme yoo xam ne day leer ñu xam ko waaye 2000 naa def nangam. loolu duñu loolu duñu ko dégg <laughs> ma ne ko wax dëgg ma dem wax ko Senghor Senghor ree ni ma oh moom bàyyi naa ko xel lool ndax dafa ñëw. bokk na ca wax jalam ca waxoon ne yett yëf ci la musibam àdduna ak àlaaxira di sosoo roy loo xamut toppandoo ko yemaltu mu may ak woyofal lu diis. 1980 Baye Laat jóg ngir raxas Tuuba ba mu set ci lépp lu lislaam gërëmul mu jaral ko bakkanam tey ji ñépp di ko sant ci jëfam ju rëy jooju ak aar gi mu aar Tuuba dugg loolu ñuy aaye te nga xam ne dañ ko si dafa araam yi mu daal di def bakkanam woo ñu mbokkal ñëpp defab décision décret boo xam ne bi ñoo ko bokk signé ko kenn du ci mën a werante woo nguur gi wax leen ko daa benn bataaxal boo xam ne ci suñuy gëstu bu ñu gis bataaxal bi ñu ngi ko euh, jagleel monsieur le procureur de la république près du tribunal de première instance de Diourbel daal euh, kilifa gi nga xam ni moom mooy toogal nguur gi foofu ci wàllu yoon euh, ca Diourbel kayit gi ñu ngi ko bind le 18 septembre 1980 fële ca Touba kayit gi li muy wax mooy ñun Cheikh Abd Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xalif général de Mourides et ak ay euh, euh, rakam ñun ñi ngi wax ne te si kayit gi nga xam ñun ñoo ko xaatim ñu ngi si ñaxtu di si metitlu te di woo nguur gi si mu taxaw si loolu si nu mu gënee gaaw si lépp loo xam ne fii ci Touba sëñ Touba tere woon na ko fi moom mi nga xam ni moom moo sànc dëkk bi yooyu juróom la bi njëkk mooy jaay jëfandikoo lépp luy sàngara wala lépp luy indi màndi ñaareel bi mooy di jaay di jëfandikoo lépp loo xam ni xeetu sineebar la maanaam euh, lu mel ni sax yàmba te loolu muy lu nëbb wala lu feeñ ak it lépp loo xam ni wàllum carte la ak loterie booboo ñett bi ñeent bi mooy euh, sàcc ak jënd wala denc lu ñu sàcc juróomeel bi moom mooy sabar musique fecc ak lépp loo xam ni yëfu xumbal la. loolu dong laa leen mën a jottali jottali gi mooy ci sama warugar maa ngi leen koy jottali képp koo xam ne ci ni jot li jii ma la koy jot li jot nga a def leneen nag ku mu a doon bu boobaa da fi dan daan tox dan daan def yëf yi gone waaye Sëñ Abdou Lahad moo xamal suñu bopp taalibe murit fu mu mën a nekk ak nu mu mën a mel war naa sant sëñ Sëñ Abdou Lahad amuñu fayu Sëñ Abdou Lahad ndax xamuñu tox xamuñu carte mënuñoo nu ñoo mariage génération bi nga xamante bi fekkewuñu Sëñ Fallu fekke wuñu sëñ Cheikh Mor Moussa ñun sëñ Ablaat lañu tombel waaye sëñ Blaat moo nu naka la ñuy jàppee sëñ Tuubaa naka la ñuy jëriñoo ci dëkk bi wa maskani salli min al fujjaari waa nun ne Sëriñ Tuubaa at bi mu sañ ci dëkk bi at moom la def xasida googu mboolem li mu tuddee bëgg ci dëkk bi lépp wax na ko ci xasida googu te wax na ci wàllu ñam ne ni mu ko ci bindee nii la ko ko yàlla defalee kon nag sant yàlla rek nu war ak sàmm dëkk bi ak ormal moom rek la noonu. lay loola mooy teg leen ci kaw yoon yoon woo xam ne wii mën nañ caaw ba jariñu ba fii mu tànk yooyu ci la ñaaw ba fii mu ne commerce ci marché bi at mu jot day natt asaka fu ñu noddee ñoom ñëpp ñu maas dem ci jàkk ja te loolu lépp gannaaw yàlla nag gannaaw bi yéen fi sëñ Fallu dajale ba noppi nag moo leen wax nag leen fi doon dajale dafa mel ni daal euh, sëñ Fallu daal dafa dajale mbooloo mépp ba mu dajaloo moom nag mu dikk nag ci euh, ci maslaam bi sëñ bi dikkee nag moom mu wax leen li nga xam moo leen fi doon doon doyee. Ah, ni mu def dëkk bi fekkoon ko muy dëkk boo xam ne bi booba sëñ falu dafa doon ku yaatu ku laabiir bàyyi woon ñëpp nu leen neex doxee. ba ñu àgg ci melokaan yoo xam ne ñun ñëpp a ko xamandoo waaye bi mu fi dikkee nim ko soppee soppin woo xam ne mooy li ñuy wax yii da koo soppi ci jëf waaye yii da koo soppi ci wax lii moom da koo soppi ci soppin wu wér woo xam ne kenn ku ne wóor na la ne boo defatee dara loo mën a def sëriñ Tuubaa dana dal ci sa kaw nga ragale ko loolu bàyyi mbaa mu wóor na lii boo ko defee sëriñ Abdoulaye dal ci sa kaw ci saayir nga ragale ko loolu bàyyi loolu moo tax dëkk bi dem ba mel nii mu mel yii fi ne ci set yii fi ne ci sell murit saadix gëm sëriñ Touba wóolu ko lool tax mu jàppe woon njabootug sëriñ Touba gépp ay sëriñam di leen liggéeyal di diisoo ak ñoom saa su ndax moom lim njëkk njëkk njëkk tàmbali ab liggéeyam mooy jox sëriñ Touba ay doomam doomi sëñ Tuubaa yi mu jox leen seen àq. waaye ma ne tam noonu la sëñ Cheikh borom dër bi noonu la te ak mboolem ñi fi nekk na nag bi mu toogee te nga xam ne dafa jiitu sëñ Abdou Khadir toog tas ci moom sëñ Abdou Khadir moom leen boole woon ab liggéey kii ci yor kii féete ci boobu kenn musu cee amul rakk sëñ Tuubaa amul doom. sëñ Touba amul kenn ku dul ab talibe donc firnde ji laa leen di wax doomam ju ne nga toog fi moom jaay ko njureel gi mu ñu jur jëndee ko ak talibe mu ngi leen digal li ñuy digal talibe yi di la sant li ñuy sant nga di ko def ni ko talibe yi defee. dara wuutaliwul ak moom lu weesu du du looy du ci sa dundin wala sa kër wala sa daraja lu weesu baatu xalif daan yaay sëñ Touba rek waaye yéen a yem ci lépp. kenn ku ne ci ñoom it defe nga ne bis bu ne suba ba ngoon defe nga ne lim lay yónnee ci ay teraanga yow rek la ko yónnee ba ka dëkk ak yow day defe ne liñ ko indi lépp yow la ko indi kenn ku ne sédd na la ci sa bopp loo xam ne lépp lu muy def mbaa lu doon lu mu doon ci dëkk bi dana ca diisoo ak yow laaj la ca la ca sa xalaat ba diggoo ca ak yow koo def waxtu wi déggee baatam mu wax ci rajo bi rek fekk ne diisoo naa ak ñi bokkal sëñ Tuubaa ñëpp. fekk na daa wax ni. man ah, sa sama bi sama bi sama bi bi sëñ bi nelawee ñuy def li ñuy wax miraas man sans wàll wu dañ koo joxoon suñu di jaay ñu jox ko sëñ mu def ko ci banque ba. bi ma amee fu noonu la ko daa waxee bi ma amee fukki at ak juróom-ñett man leen léegi àll ba nu fukki at ak juróom moom kenn du ko yor ma ko jox ne ko maa ko moom jox ma ko ma jox ko sëñ Abdou sëñ Adiya